Salut les amis de eSport TV et de Babo Show. Merci encore Gaël de la confiance en nouveau. Merci de des likes, merci de à abonnés.

waxtaanee nga xam ne donc euh, ci clash bi am diggante Mbappé Neymar Messi Kurzawa indi ci ay leer wax également ci nga xam ne donc lii di euh, trophée euh, bu am ca France bu yor organisé ci Côte d'Ivoire mais aussi dañ invité ngeen dem ci eSport TV seetaan vidéo bi nga xam ne moom lañ def ci Ismaïla Spilissa transfert am di côté de fi nga xam ne Crystal Palace détails yi nan la demee et tout waxoon naa leen ne gars yi dañ ñëw rejeté woon premier offre bu Crystal Palace muy Marseille détails nag di ngeen ko am léegi léegi léegi gars mais laata boog gars yi xam ngeen ne Thibaut trois dafa njool kenn doot ko mais xool leen beaucoup Courtois vous avez tué tout pour vous montrer avec joueurs NBA combien ils sont machallah immense euh, Colin oni la légende des Lakers, Actibo Courtois. Pendant ce temps, bonne chance hein, aux représentants africains ci Jeux Olympiques Oui, euh, donc Maroc Mali Guinée ak li nga xam Égypte Hein, Mali tey bu ñu ko waxee Sénégal ni mon dore au Mali match à bi retour bi gars yi daal di weere loolu yëpp aussi bokk na ci li nga xam mooy donc ñàkk déggoo bi am diggante équipe avec équipe espoir pendant ce ki nga xam moy Chaloba très beau Chaloba gars dañ né dañ koy daal euh, jaay du côté de Chelsea dañ ko bëgg a jaay en tout cas ba tax boolewuñ ko ci sen tournée internationale bi foofu ci États-Unis mais mom nee na bàyyiwul benn yoon dafa bëgg a toog il va faire ses preuves Chelsea bi nga xam aussi di actuellement seen ñaari gardien yépp dañu bëgg a séparer ak mom ki nak di Kepa moom nee na daal daa bëgg tok ci banc Real mom dal tok banc Real mo gën ñëw jouer du côté de Chelsea l'autre gardien également aujourd'hui du gardien titulaire, il est aujourd'hui également sur la liste des départs. Qui euh, n'a dit Fofana Bou Monaco, Mounak a un accord de principe Agua Milan AC pour Dadi Foy euh, Dem, de descendants de club, il qui détaille et tout, mais on y a pour Dem du côté du club italien. Qui n'a pas Sancho, tu vois, dans fini ni dit Manchester United, a signé accord de séparation. Vous faites que Disney club ou proposition pour Dadi euh, Kodjar, mon affaire du côté du Paris Germain ay rumeur la yu koy au foofu de même aussi que né ay rumeur jamono ñu commencé wax nañu du côté de Paris Saint-Germain on s'intéresse aussi à Nico Williams que gars yi nañ waxtaan yi aussi aujourd'hui comme je dis hein, c'est toujours à toucher avec des pincettes parce que mom dal priorité FC Barcelone le ko Julian Alvarez Manchester City nee ko bëggu ñu jaay la da ngay millions d'euros ci table bi manam 70 millions d'euros ak 20 millions de bonus pour ñu daal l'attaquant bi nga il est jeune il a tout gagné avec la sélection et Manchester City Kurian Alvarez Rodri également Qui a bah, le ballon d'or euh, Pep Guardiola wax na sincèrement beaucoup ko Rodri jëlee dina ma neex lool parce que il le mérite mais comme je dirais, critère yo xamné xam tenir en compte du man ma koy définir loolu dal daal di wax mais aussi dellu si na ci Kevin De Bruyne na Kevin De Bruyne gay yi ñu ngi koy tudd ci Al Ittihad waye demul fenn puusul passul bàyyiwuma mu dem et il ne va pas partir je compte sur Kevin De Bruyne loolu le Pep Guardiola dal di xamle ci milieu de terrain belge bi nga xamné ñu koy tudd du côté de euh, l'Arabie Saoudite mais aussi qui nga xam donc euh, Nacho Real dañ koy rendre hommage Momi mi nga xam ne dafay daal di moom mi nga xamna gaay fi ni dem na paré ancien ah, du côté de Al Khatia lay daal di dem moom mi nga xam donc Nacho kii nak di pierre Emic Holzberg ah moom nga xam le joueur de Tottenham signé du côté de l'Olympique de Marseille mom nak ñëw na le bo xam voilà donc il a sa maman yaay moom origine d'origine française moo tax moom intégration mi dou metti ci mom et Yag? na dem vacances du côté donc de la France Qui nak di Nketiah également le joueur d'Arsenal moom it ah nañ amna accord ak wa Marseille li des accord am diggante. Euh, club de bi Arsenal et Olympique de Marseille mais moom daal bëgg na dem pour am temps de jeu qui nga donc Eddie Nketiah nga xam ne actuellement l'entraîneur de Zerbi il a réussi à le convaincre. kii nag di Kourzava le joueur du Paris Saint-Germain ñoom Inna indi na ay leeral jëm si nga xam actuellement clash bi amoon Messi Neymar ak Mbappé nee clash bi nag li waral joueur directement mu est dafa am ñoo xam ne autour de Mbappé ak euh, autour de plutôt Neymar ak Messi di indi ab coow nee na partie bi aussi am ñoo xam ne non war ñoo bayyi ki nga xam moy donc Mbappé mum kese mu tok lolo waral dal mo am clash mais nee nañ ko waral moy ñi nekkoon autour mais aussi Lionel Messi dal tay tendance bi dal da génn depuis bañu ñu foté Lamine Yamal fu mu mënti def gis ngeen Argentine kéro ni ko ko coéquipier bi daf fi ne nag Inter Miami gaay yi léegi dañuy indi seen dom <laughs> pour Messi gaay yi daal di euh, koy bénir ñom dal loolu lañ wax jamono ji mais aussi li nga xam moy donc trophée des champions bi war am diggante euh, Paris Saint-Germain ak Monaco ba moytu ñu dal di koy am amalee ci Côte d'Ivoire loolu nak ministre des sports bu Côte d'Ivoire mo xamlé xamle nee na mbir mi ngi avancé avancé baax baax am nañ jottees ne Côte d'Ivoire moo ko organisé loolu nag lu rëy rëy rëy compétition yi ni mel gannaaw Maroc mi accueillir coupe du monde des clubs bu ñu trophée des champions Côte d'Ivoire Sénégal nag mooy des mooy comme on dirait ben benn stade moom taxut a il faut nga am politique bu baax baax di investir infrastructure mais aussi xaalis bu ñu jox gars def ko fiñ ko wara a di def les amis c'était les informations qu'on voulait vous donner c'est toujours un plaisir de vous servir di len fàttali également gars dem leen ci chaîne YouTube bi Baba Show ngeen abonné ci suñu chaîne bi dem aussi ci chaîne YouTube e sport TV gën ñu dolé abonné fa bës ci cloche notification bi euh, TikTok bi nag iSport TV 1 la Instagram bi iSport Inter su baaxee si yéen a ngi abonné suñu la jaa ngeen